bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ngi bàyyi xel seen web tv Al Azhar Touba ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di leen ziar di leen balu àq di ñëw ak yéen tey ci seen euh, spécial numéro euh, fas yéene dalal Euh, kilifa gu tedd muy Serigne Mourtala Kebe di koo xam ne nii euh, fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi fi lañ ko jaarale muy jàngal ko alquran jàngal ko xam-xam euh, moom itam mu wëlbatiku jàngalewaat alquran jàngale xam-xam ab diir walbatiku tukki tukki yu yàgg nekk di daan dooleem ci bitim réew ba delsiwaat fii ci Sénégal wéyal liggéeyam taxawal ay entreprise am euh, di yëngu nekk opérateur économique bu mag en même temps moo yore sunu desk italien lépp loo xam ne nii gis ngeen ko ci màggal gi émission yi màggal gi bu ñu amee li nga xam ne nii mooy ay émission italien mooy ki nga xam ne nii moom moo koy taxawu di sam euh, nekk tam sunu consultant ci wàllu lépp li nga xam ne nii xew na ci euh, lu bees loo xam ne nii njàngat war na ca dañ ko woo mu indi ci ay xalaatam ci domaine yu bari Euh, li nga xam ne nii mooy ay di njàmbat ni ñu koy waxee euh, mooy li nga xam ne nii moo xew euh, fële ca France ba nga xam ne ñëpp jóg nañ ñi naan je suis Charlie ñi naan je suis pas Charlie ñi naan je nii Charlie nii tireur lu nekk dégg nañ ko muy xew-xew bu am solo boo xam ne nii àdduna bépp gis nañ ko ñun itam Al Azhar Touba ñu war a dikk nag dem ko analyser andi suñu consultant Serigne Mourtala maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu sëñ Lamine bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidil mursalin wa euh, maa ngi lay delloo nuyoo tey kontaan ci ak di bég ci euh, dalal gi ma dalal ni bismillah jërëjëf Serigne Mourtala. en tant que koo xam ne nii dañ ko yar ci daara euh, mu jàng alxuraan jàngale ko yar ay nit ginnaaw bi ñu la yaree ba noppi ci yow bi ñu fi jógee itam dem bitim réew yàgg fa lool euh, lii nga xam ne nii moo xew France yow en tant que nit kuñ defar noonu ban njàngat nga ci am. jërëjëf sëñ Lamine ndax laaj bi euh, ñu ngi leen di ñu rafetlu bu baax ni nga organisé lii ndax képp koo xam ne nii jàngale. Euh, ak yar. Mm-hmm. mooy sa liggéey su fekkee jullit ñi am nañ euh, euh, masala mu toll nii. Mm-hmm. war nga cee war a mën a leeral jullit ñi ay position tout à fait surtout position yoo xam ne ni ñun murid yi mm-hmm. wax dëgg yàlla di topp al azhar baax na ñu gisee ci gisiinu al moo tax bi nga nee ma ñu def ñu def ci ay jàngat dama ciy sawar lii xew nii sëñ Lamine euh, mooy loo xam ne nii lu mat daanaka depuis 2006 ba léegi mu ngi ci tele européen yeeg ak ak ak ak journaux yi. Mm-hmm. ñu di jëlee ki nga xam ne liñ gën a fonk ci liñ am mu yonent bi ñu di ko pall ci seen journaux yi. Mm-hmm. ak ci seen rajo yi. jullit ñi doon ñoo xam ne wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne amuñu pexe ñi ngi toog di ko muñ. réewum Europe mu jël bu noppee jox moroom ja mu seet ni ko neex mu traité ko li ñuy wax caricature yorante bi. Mhm. mooy melal ko ci ni mu leen bëggalee melalu yi du ma jàll fii di ko wax ndax eh, ni sëñ Tuubaa di jàngalee naan buy jàngal boo demee ci naax joog téere yi muy jàngale yëpp boo buy wax lu baax. Mhm. da la joy buy wax safaan ba du jaar ci tur ba danaan la safaan ba ndax moom xalimaam. Mhm. wala aw làmmiñam waat naa ne. ñun ñëpp xam nañ ne lu mu ci bind yàlla def ko moo tax daanaka nga dem sawara doo dégg sëñ Tuubaa di ko wax safaan ba dal lay wax mm-hmm. kon nekk fi di leeral lan lañ caricature lan lañ wax damay gën a bokk ci ñu koy yaatal mm-hmm. jàppale na daal lépp loo xam ne nii jëfin ñaaw la wu ñu war a mën a jëm yonent bi melal nañ ko ko mm-hmm. woyofal ko nag sëñ Lamine ñu bari ñu ngi yaakaar ne yëf garaawul du fi nekk nag di doon ñoo xam dañuy alarme di yokk dama ne na place bi mu war a jox rek lañ ko jox mooy nit ki su fekkee da ngaa ñëw jàpp ne sax euh, euh, euh, sa ndey ji la jur du sa ndey boo ko tuddee noonu waaye fal ko sax mu doon ko kon li ngay jàpp ay jàpp ay ay ay ay ay tolluwaay. Mhm. ak i jàppuwaay nit ñi ñoo koy def maanaam mbir mu ne nit ñi ñoo koy def la mu doon. Mhm. nit ñi suñ toogee ne lii mooy suñ symbole république. Mhm. lu mel ni drapeau lii mooy suñ monnaie. nit ñi ñoo décidé def ko ko. mu doon ko ko mu am ay respect yu ca war. Pastef nag dafa doon loo xam ne moo jiitu yooyu yëpp ci kaw. Pastef li nga xam ne ñun moo ñu bu ñu jàngee fekk ñu ñu jàng fekk yonte bi moo jiitu moo gën suñu ndey gën suñuy baay seeni ay ay soxnaam mooy ummu ummahatul mu'minin lañ leen di wax ñooy suñuy waajur. kon ñun Alxuraan am na fu wax ne du ngeen nekk jullit feeg yonent bi gënul leen seen bopp. Mhm. kon ñun yonent bi mooy suñu existence ñun. ñun nag rawatina ñun murid nag nga xam ne fii borom dëkk bu tedd bi Seexul Xadim daraja bi gën a kawe bi mu doon wër mooy Xaadimu Rasul Xaadimu Rasul. kenn mënu ko définir ku sëñ Tuubaa bala xam lan mooy daraje xaadim rasul nga xool li sëñ Tuubaa li ko yàlla may rek loolu mooy xaadim rasul loolu dañu xaadim rasul nag ci arab mooy kii liggéeyal yonante bañ na ko xaadim mindaan lay firi kon kon ki nga xam ne ñun ci mu ñun mooy li gën a tedd daanaka muy sëñ Tuubaa mooy <coughs> maam kooka mooy ab xaadimam kon ñun mm-hmm. kooka mm-hmm. xaw ma nu war a mel léegi nag nga jël lu mel noonu sëñ Lamine mm-hmm. melal ko nam la neexee. nit ñi gëmm nga di ngeen di ko paasante te bis bu set ñu def xëy def ci titre. Mhm. léegi jullit ñi wax dëgg yàlla bu dee fi mel ni ñun Touba fii am nañ ay exemple ci non violence ak ci résistance. Mhm. muy sëñ Touba bu leen fàtte ne vingt sept ans. bokkut ak ay juróom-ñaar at yi may dégg ak euh, euh, euh, at yi ñi def résistance pacifique yëpp ñu ngeen di dégg sëñ Touba. Mhm. dundam gépp ci mujj gi dañ koo jël. Euh, euh, euh, def ko diggante sonal ak résistance kon kooku. Mhm. képp ku yoo xam ne mooy def résistance pacifique ci moom nga tàmbale ñu moom la ñu jàngal loolu ñu yar. Mhm. waaye nag nit ki mënoo jël pastéefam di ko pall palle lu ne nga def ko ba foog ne nag ah, wax dëgg yàlla dafa woyof mënut a woyof ci ñun maa ngi fàttali ne daraje ji ñuy wax liggéey liggéeyal yonent bi. Mhm. moo taxoon sëñ Tuubaa dem. kon kooku nga xam ni sëñ Tuubaa lu mu am ci la ko amee nga jël ko waaye fal ko bu ñu nee naqariwu ñun murid dañuy wax su dañuy wax lu ñu neex rek mais naqar nañu dañoo am nag misaal yu ñu jël. Mhm. daree ci moom waaye maa ngi leen di maa ngi ne. Mhm. lii ñuy wax bala ngaa xam fi mu tolloon nga dem ba ci digg France nga taxaw policiers yi taxaw ñëpp taxaw nga xotti drapeau France. kon liberté d'express bi euh, d'expression bi ñuy wax kon. exactement laa jëm soon mhm. parce que. liberté d'expression su fekkee da ngaa jël symbole yi nga xam ne mooy représenté ay mbir. parce que bul fàtte ne. Euh, jëmmi drapeau française wala bu Sénégal boo taxawoon fi xotti ko am na lu la ci yoon wax. Mm-hmm. monnaie franc CFA bi wala monnaie Europe ne euro wala dollar boo taxawoon xotti ko. Mm-hmm. dañ lay jàpp. Mm-hmm. su fekkee dem nga ci li ñuy wax union européenne ak Amérique. Amérique nag des na ma leer mais union man bér na ma ne. am na lu ñuy wax loi antisémite. boo fa jëlee weddi ne yow sëñ Lamine Touré nga taxaw ne. liberté damay exprimer liberté d'expression la ñuy wax. nga damay exprimer ne. holocauste musta am. Mhm. dañ lay tëj juróom-ñaari at. nga xam ne loolu loi la loi la. Mhm. am na Italie man fa nekkoon xam naa ko. Mhm. am na italien boo xam ne dafa demoon conférence euh, euh, Taxaraan. bi mu ñibbisee dañoo ñëw nangu titre université am. parce que defewu ko ci euh, titre professeur am. mais nag mënuñ ko tëj parce que defewul weddi googu ci biir territoire Italie mais dafa doon koo xam ne da ci doon bi Iran invité woon te ñoom weddi wuñ dañu nañ ci nañ ci discuter. beneen feneen foo ko def ci ci Europe dañ naan la dañ lay war a tëj juróom-ñaari at. Mhm. am na kuñ ci tëj ca Autriche kuñ xam. léegi loolu man nekkumu fi naan loolu baaxut dama ne nañ leen defal loolu ñu defal rek ñun li mhm. gën a sacré ci ñun. Mhm. mooy yonent bi mooy suñu Pastef mooy suñu drapeau mooy suñu xaalis. ñun rawatina tubaab gis nga fii Sénégal gi rek bi nga xamee ne. Euh, laal nañ fi wax joo xam ne ñit ñi dañoo déggee ne wax ji sëñ Tuubaa doon wax rajo mhm. ba ko wax dañoo taxaw ci buntu ba di jàngi xasida ak di yëkkati kon euh, euh, te boobu dañoo jort mhm. kii nga xam ne daa bir bis bind te bind mooy li des bul mhm. fàtte ne sëñ Lamin xasida yi sëñ Tuubaa bind yëpp boo koy wax da ngay amub yool mooy dox na boo naan salli ala muhammadin am na fu ne fa man taxa man xayaa li man la xat-xara a la wax xat-xara a mooy yaa ngi jàng yaa ngi exprimer ay baat yu jëm ci yonent looy jàng maanaam li ñuy jàng di julli ci yonte bi ku ko ku koy def. Mm-hmm. mu bajjiloon fa xabaa xay fa xabaa xayraati ahli nimi mm-hmm. ah, ahli nihami ak lim mm-hmm. ahli nihami lim ci gàmm lépp. mooy kuy màggal guddi yonte bi. chaque àjjana dafa leer ba noppi. ahlul badr ngay tollool yéen dégg ñëpp ko jàng. kon kooku buñ jógee ci weer wi nga xam ne ci lañ jógee nii ñu di ci wax ngëneel yi nga xam ne li sëñ bind. sëñ Tuubaa ñee dañoo bind sëñ Tuubaa bind bul fàtte waxuma ne luñ jëm dama ne ñee dañoo bind loo xam ne ba àdduna du fi di fi mooy ŋàññi yonent bi hmm, kon daal offense dëgg nga gis yow dafa dafa ko gën a melal sax hmm, hmm. lan mooy offense su fekkee yow sëñ bi da bind ñu dee na comme ne ay règle la yoo xam ne nii ay nit ñoo décidé def ko ñun milliard et demi ñoo décidé lii mooy suñu yonent nañ ñu ko fa bàyyi li may ñaan man politiciens yi Sénégal yi ak li may ñaan ñu yóbbu ko ci Nations Unies ñu def projet de loi boo xam ne dañ ñuy aaral suñuy muxaddasaat mooy. Mhm. suñuy sacré loolu laa bëgg wax ne. Mhm. moo gën a man mooy mooy suñu xeex ñun. Mhm. ñun naturellement xam nañ ne fii ñàkkuñu fayda ñun murid yi fii nag dañoo am koo xam ne mooy suñu royukaay fi mu jaar fépp lañ bëgg a jaar. man du fi nekk ci ñi bokk ci naan ay je suis Charles léegi yooyu ñun. bokkuñ ci yooyu ñun ñu wax ñun euh, duñ fi mën a nekk naan. je ne suis pas Charlie sax dama ko dafa gudd parce que da ngeen di may. Mhm. Euh, euh, mel ni ñoom dañoo existé. plus que yaa ngi tudd baatu Charlie bi rek. day mel ne yaa ngi leen di dimbali da ngay dimbali Charlie maam ñoom fi ñu toll mooy. Mhm. Eh, dafa mel ne kon. dafa bii la dafa mel ne ñoom am na loo xam ne nii boo ko waxee dagan na ci ñoom. Mhm. waaye nag bu dee ci ñeneen ñi daganul. ndax su fekkee loolu dama la koy limal. Mhm. bis boo xottee drapeau français ne damay exprimer mhm. yoon dalay jàpp soo xottee monnaie. Mhm. yoon dalay jàpp. xam nga gars yi dañu lee dañoo bind ñi ay jëf la bind ba tey. boo bindee. Eh, eh, ne ne holocauste amutoon dañ lay jàpp boo ko waxee dañ lay jàpp. kon expression boobu. man néew ma ne ba eh, nañ ko may néew ma yii dañ ko war a maye dañ ko war a def xotti xaalis. wala xotti drapeau. wala weddi holocauste. mais nañ fa yóbbu fi nañ ko yóbbu ci. jullit ñi nañ leen yóbbu foofu mm-hmm. seen yonent bii nga xam ne alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. mooy li gën a fort ci ñoom nañ def loi yoo xam ne mm-hmm. dañ ne képp ku caricaturé yonent yonent yonent bu mu mën a doon mbaa nga ŋàññi ko mais dañ lay tëj loolu bu ñu ko waxoon tubaab bi tubaab bi loi dong lañ gëm ñoom gëmuñ lu dul loi kee def na ko yóbbu nañ ko ci yoon kii di wax nii ba mu génnee daa waxaat la gën a ñaaw ba mu génnee la ko wax daa génnewaat loolu du ma ko melal fii génnewaat na lu bon ci melaw yonent bi taxaw di gën a baxal xolu jullit ñi képp koo xam ne nii sab xol sang sangul ci sangu ci lii rek war ngaa xoolaat sax lislaam ba xam ndax mhm. ñàkk a dégg lislaam mooy mhm. ñun dama lay wax rek ñun ñu jàng fiq xam nañ lan lañ wax ci ko man sabban nabi xam nañ li wax mhm. ñun jàng nañ fiq duñ fi nekk nag di ku bëgg a jàng fiq ngay dem topp waaye képp ku ŋaañ yonent bi fiq xam nañ li wax ci moom mais nag ñun ñi nga xam ne jàng nañ fiq xam nañ loolu xam nañ fi ñu toll kon mais nag gis nañ ay imam de yoo xam ne nii hmm. ay nit diine yoo xam ne nii daa mel ne nee nañ ils sont sarli loolu gis nga sëñ Lamine hmm. li ma ci gën a neex mooy boo de damay sànn hmm. bëgg dem télé Italie imaam yi hmm. am imaam joo xam dañ ko laaj mu ne man lakkalee dane man xam naa ne débat indiwuñu fi parce que fii émotion moo fi am boo débat duñ la may sax wax man damay condamné rek am na ci ñoo xam ne comprendre naa leen mooy ñoom ñi leen di fay ak circuit bi fi mu jaar faaw ñu mën a neexal mais nañ seet seen diggante ak yàlla ne yonent bi baat boo ci wax ki nga xam ne moo tax lu ñuy sàkk lamp yi tàkk lépp yàlla yonent bi moo tax mu am. Mm-hmm. nga xam ne daal da ngaa a wax ne kon jëru nga xam ne jërul maslaa gi jëru ko ci foofu. déedéet mm-hmm. ndax fi ne dafa wóorut yonent bi. Mm-hmm. malaaka yaa ngi lay dégg baat boo wax mu jëm ci yonent bi man Pastef laay waxee. lépp loo wax bi. war ngaa sedd fukki yoon ak juróom war nga koo wax parce que. bu la ko alal jaral bu la ko jaral bu mu mën a doon na la ko jaral ñu France yi laa gën a comprendre sax ka ka ñi ñuy wax ci Sénégal ak yooyu. en tout cas daal dégg naa ci euh, Ahmed Khalifa Niass dégg ci oustaz euh, bi wax ci seen TV. Mhm. moom mu wax na ci li ci fiq wax. Mhm. ñun duñ ci delluwaat waaye dama ne la. Mhm. dafa doon loo xam duñ toog ci ay télé boo gisee gisoo ustaas yu bari nekk yu murid sax ñun la jàngal fiq. point de wax nii mooy yonent bi. kooku na lu ci yoon wax. yonent kenn wur leen a ñàng yoon woowu nekk yoon lépp fi di appliquer li nga xam ne nii ñun bay sa wewu tànk fii lañ ñu jàngale gox bi lañ dëkk ñi ngi fiy jéem aar Euh, yonent bi liñ man si mm-hmm. njàngalem sëñ Tuubaa mm-hmm. maay maa ngi bëgg a xam ne ne mm-hmm. sëñ Tuubaa li ko doxoon dem ci géej gi li mu def lépp mooy nee na woon abdun abdan wa xadiman li rasulillah am na fu mu ne billahi la laa ilaha illaa huwa sëñ la bi gëñ gëñ gëntu mag loolu mu ne xayaati wa mamaati wa sakanaati maa sayyidina Muhammad giñ gi gën a màgg ci ah, ñu ne ko lu mu doon mën sama dund. Mhm. sama euh, sama dal. Mhm. ak sama faatoog lépp mi ànd naag Seydina la ñun lu toll noonu. mun mhm. koo jël nag. dëgg la bëgg koo jàppe lu ñuy xotti ak. woyofal ñun. mën nañoo néew doole ndax xam nañ ne tubaab bi li dajaloo fii démb tey. loolu arrogance la ak bari doole doo fi nekk nag di dama la. ñoo yor média yi ñoo yëpp wax la ñu nekk mais dëgg gi. mooy ñun sàkkuwuñ naan. dañ ñoo maanaam nañ am na ci yoo xam ne dafa ëpp nga koy sàkk ci réew ñëw doole mhm. ak ci jullit ñi xam nañ ñoo yor euh, doole ji mhm. xam am na minima boo xam ne moom laa bëgg ñu def ko débat léegi tàmbali koo jël mooy mhm. nañ ñu defal loi bu aar suñu yonent yi ba kenn du ko nga ñetti am na ci géopolitique yoo xam ne dugguñ ci ay xeexu Palestine yooyu am na ci loo xam du diine ndax Palestine ñoo jiite manifestation yi ñoom ña nga toog li ci ëpp duñu ay jullit ñenn ñi kon ay Palestine ay Israël ay Irak yooyu c'est des géopolitique yooyu comme neex nga am ci position mais yonent bi. Mhm. du ay kaf. du nañ ñu ko bàyyil fële yonent bi du mhm. loo xam ne. Mhm. da ngay toog di ci am sa opinion ak bañ opinion diine. kenn amtu opinion ci diine. diine dangay gëm mbaa nga bàyyi. mais doo mën a toog ne j'ai le droit de ne pas croire la ñu wax. mais sëñ bi ne pas croire ça pas dire euh, offenser ak euh, blasphémer. effectivement donc mënuñoo toog ñoom au nom de la liberté. ngay offensé au nom de la liberté man su ma neexee ma jé ma bëgg sa télé bi mm-hmm. liberté am télé laa bëgg te amoo télé bee mm-hmm. ma ñëw jël ko loolu sàcc lañ koy wax mm-hmm. liberté man lii laa gëm mais exprimer ko ci ne lii mooy sa yonent bi nii la mel loolu kooku du liberté sëñ bi. maanaam loolu mooy ci sama gisin. jërëjëf sëriñ Mourtala euh, idée bi leer na naa naññi nañ léegi yow. Euh, dund nga Europe. ay at. Euh, liberté d'expression foofa. nan nan la fa demee. waaw foofa. <laughs> lu laaj bu am solo la. parce que tubaab bi ñëpp xam nañ ne ñoo ñu raw ci média yi yëpp ñoo ko indi. mais mm-hmm. ñun Sénégal gii bu ñu xeeb suñu bopp de. Mm-hmm. fii pël mi ngi fi. tukulóor. Mm-hmm. wolof. joola làkk yu bare bëri bëri. tijaan murit xaajar xeet yooyu yëpp ñu ngi fi. parti politique yu bëree bari pourtant ñun ni ñuy dund nii fi ni nii waat naa ne amul Europe. parce que man nekk naa Europe boo bëggee julli. bu ñu bëggee julli correct ay garanti la ñuy aal ak yooyu. feet yi ñuy feetu fii ñun ban feet la ñuy feetu fii Sénégal boo xam ne feetu feetu feetu feetu feetu feetu Sénégal parce que mhm. bërki dem lañ kaas màggal ndax xam nañ ne màggal mënta ñàkk defe naa ñeent la de korite tabaski ak gàmm gi dañ koo kaas màggal moom daa forcé boppam korite tabaski waaw màggal tamxarit gi mhm. dañoo kaas moom it ak kii gi mhm. te fi ne nii li ñu war a kaas mooy comme nañ daa bëri feet yi nga xam ay feetu chrétien yi muy Rome nga man Italie duñ ko feetu ay tuuti santé li nga naan tout tout saint fii kenn du ko feetu fële. Mm-hmm. feet Noël la ay ñaar yi ca feet république mm-hmm. mais feet yi ñuy feetu fii yëpp ñun ñoo am suñ tolérance fii ñun tolérance bi ñu am fii amul fenn ci kaw suuf. Mm-hmm. ñun murit bi du du saaga tijaan bi xaarit bi du saaga noonu la ñuy dund ñu ngi koy ñu ngi koy dund. ñu ngi koy jéem. làkk wolof ak tukulóor ak yooyu amul fii problème. te pourtant wolof fi mu ne nii yow fi ne bu ma seetlee Touré bambara la man ñoo man soose xaw ma mhm. te pourtant ñun dégguñu sax làkk yooyu mhm. loolu mooy tolérance bi nga xam ne moom la ñu dund fii Sénégal nga xam ne kenn ko ne la nga doonoon sax mhm. wolof kenn moomu ko mu doon loo xam ne nii liberté la boo xam ne man mi tàmmoon fii bi ma demee Europe yaakaar na ñoom bi nga demee ñu koy ndamoo doo ko fa gis ndax lan soo solo yére wolof bu dee fi mel ni Italie moom dañ lay a ree nag parce que te ñun ay sirib dañuy sol suñ géej gi te duñ ko seetlu sax dañ leen koy bàyyee ba exprimé wu ci la bokk. mooy mhm. exprimé sol li nga bëgg a sol. Mhm. ñaareel ba mooy. Mhm. feetu musulman amul Europe yëpp feet goo xam dañ koo décrété. dëkk bu ñuy wax région bu ñuy wax toskaan ca Italie ñoom may màggal gi murid yi ngir ne ko dem liggéey ñu fay la ko màggal gi. Toscane te ñooñu. dañ leen koy sante mm-hmm. waaye li yoon yoon mooy ko euh, euh, jullit gi ni ñuy feetoo fii ñu au mm-hmm. moins ñu may ñu ñaari fan muy korité tabaski gi nga xam ne mm-hmm. milliard te sax mayewuñ ko foofu amu fa loolu nekk Europe xam nañ ko mooy korité korité da ngay ñaan féer dem dem jullit ñun ñu may leen fii Toussaint may leen Pentecôte may leen ko boo ko waxee noonu sax fi lañ bokk ay chrétien lañ fi lañ dëkk mais ñun jël nañ ci loo xam ne nag mhm. tolérance moo ñu ko yóbbee bu ñuy wax tolérance laa a wax mhm. ça boo jëlee lu mel ni feet yi nga xam ne feetuñ ko ci fa christianisme jóge mhm. wala boog fa nga xam ne mooy base ba kon ñun ñoo leen gën a tolérant liberté boobu laa dara dafa am damay nettali benn xissa rek pour wan la la philosophie bi ne ñu yar ñu ci dafa am benn waay bu jógee daara jorof jaar fii ci garage bi garage su daara wàcc fekk Touba am na heure boo xam ne Sonatel day def midi xam nga ñun fi midi kenn du fay téléphone orange parce que day am nañu la fay am na benn compagnie boobu maa ngi jéglu mhm. moom mu wàcc fayuñ comme du maa duñ fay ndox nag mu nañ nañ nit ñi mhm. mooy ñun ñi fayuñ ndox fayuñ ci ndox mi nañ am ci kii bi mais mhm. duñ wax naan nañ yemale maanaam ay xéewal kenn du ko xañ nit ñoom ñuy feetu ñun duñ ne leen seen feet yi dañ ko bu leen ko fi feetoo leen ko ñun dañ nañ ñu ko may fale ñu nit ñun dañoo bëgg kon li ma bëgg wax mooy na ñëpp bir Europe liberté d'expression bi ñu wax ñun exprimer wuñ liñ doon existence suñ culture diine ni nga ko war a pratiquer waat naa ne boo demee li ëpp ci réew européen ay garage mooy seen seen jàkka yi. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. euh, imposé nañ barki Demba Ndiaye ñun xam nga ñun fiq Malik xutba ajjuma dañ ko war a wax ci arab mm-hmm. imposé nañ Italie foofu kenn foo xutba ci lu dul làkk arab xam nga loolu daanaka mooy te juif yi ak la ñuy wax bu ñuy bu ñuy julli latin abos euh, famos noonu la ñu koy làkkee mooy mooy mooy latin mooy diina ju njëkk ji kon am na yu bari yoo xam ne Europe bu ñu ci bëggoon dugg du ma du duñ ci xaj mooy am na ay liberté yu ñuy wax yoo xam ne ñun mun seenum réew ñoo ko moom lu leen neex def. mais mhm. mënuñoo toog fii nag di leen ci ñee dañ maa maa ngi bëgg a xam ne ñoo leen ci raw. Mhm. liberté d'expression fii kenn du dugg di saaga murid mbaa tijaan. Mhm. rajo yi sax ñoo ko dul jàll defar. tey rajo yi pourtant kenn formé wu leen ci. dafa am éthique bu ñuy doxee. fii Sénégal gi fii. te pourtant loolu kenn décrété wu ko fenn. ba dee liberté d'expression terewuñ nga daan ne man. wax waaye am na ci loo xam ne comme da ngay si nit doo ko def mhm. fee nag man ñi may déglu xam nañu ñi bari nekk Europe ak yooyu bis bu mhm. set bu dee fi mel ni France ak Italie moom loolu it da lay day tax dafa bokk man li ma wax rek mooy mhm. nekkuñ fi défendre immigré yi nekk fële tànn seen réew pour wan leen nag dafa am solo suñu lemin am na ci ñoo xam ne nañ war a xam ne wuti alal am fa dara ñibbisi bokk na mais tànn nationalité nag conséquence nañ toll man bi may doog Italie mhm. ma def naa fukki mhm. tànn loon nañ ma nationalité mhm. biñ naan ku bëgg am nationalité mën naa ko am man mais dama xam ne dem di waat di ci beneen euh, constitution bu dul bu alxuraan man mënu ma ko bu Sénégal sax def ma ko wax ma may dem di waat ci Italie kon dafa am ay yoo xam dafa am ay conséquences yu ñu ciy topp li ma doon wax daal mooy jullit ci réew yu minorité xam nañ ñun ne ñoo war di moytu mais nag maa ngi bëgg a wax ne ni liberté bi ñuy woote du dëgg ci ñoom parce que des na. càmbaar lañ am nañ liberté bari bari waaye liberté d'expression. li mhm. ñu naan il diverso kii mhm. wuute bokku ci. Mhm. mooy immigré yi bokkuñ ci ñu ci ëpp. surtout nag jullit ñi nga xam ne. dañoo wuute ñoom bëgguñu soo ñëwoon ñuul mbaa nga doon julli sax di naan sàngara di naan café di dem ci boîte yeeg yooyu amuñ problème loolu seen valeur. am nañ ci liberté mais valeur bu wuuteeg ñoom mënuñ cee. mënuñ ànd ak yow da ngay jërëjëf Serigne Mourtala analyse bu amoon am am solo nga def. Mm. nga loolu rek liñ ci mën a déggee mooy. Mm. Euh, euh, Europe. Mm. Euh, liberté bi kon ndey ji seex la. bu tëddee war a nàmpale ñaari ween waaye boo ko gisee ci ni nga waxee dafa mel ne moom benn ween wi lay nàmpale. ndaxte su fekkee ne gis nga feet yi nga xam ne nii ñun am nañ ko fii yëpp. Mm-hmm. te ñun mënuñ sax ñu jox benn feet. benn amu fa waaw waaw. wala ñu jox ñu sax màggal gi nga xam ne nii moom moom moom nañ ko. Hmm. ay province yu tuuti. ñoo waaw benn province nga ci xam. kon loolu ndey ji seex la. Hmm. waaye nag benn ween la am. Hmm. kon Serigne Mourtala euh, émission bi xam naa li ci des. bariwul waaye dama lay wax sa kàddu gu mujj nga. yow yow yow maanaam. li nga wax lépp. nan ngay tënkewaat ci lu gàtt loo xam ne nii. da nga ko soññee mbokki taalibe yi. lii nga xam ne nii xew na France. Euh, ba muy njàmbat ci àdduna bi yëpp. Hmm. ñoom en synthèse naka lañ koy dégg nak naka lañ ci war a taxawee ñoom ñëpp. waaw sëñ Lamine daal xam naa xadis bi naan man raa minkum munkaran fal hmm. yuxayyirhu bi yadihi. Hmm. fa in lam yastati fa bi lisaanihi. fa in bi qalbihi. loolu mooy jullit ñi. ñun fii sëñ Tuubaa lañ àndoon gis nañ aw meloom. ñun nag mënuñoo ñàkk naqari fa bi qalbihi moom. ak fa bi lisaan yi mënuñ ko ñàkk yor. nekk fi ñàkk am position ci ne. liñ def yonent bi. neexu la kooku mënut nekk. Mhm. nekk fi di jéem a weddil naan. Mhm. ah ànduma ak ñooy am na ci yoo xam dañ ciy maandu. Mhm. maanaam ña def jëf jee duñ fi nekk nag. maanaam ñun nit du ñëw tooñ la ba noppi nag. nit def jëf joo xam ne moom ca tooñ ja kenn ci ñun. da koo gisee ne tooñ la nga nekk di dal ca kooku ñun li ñu ma def mooy. mën nañoo di fi identifier ki ñu tooñoon. xam nga wax identifier nañ ne ki jëloon yonent bi. ñi ko jëloon di ko bam tuwamtee. xam naa ne tooñoon nañu loolu la ñuy wax. jamono jii nag tool na foo xam ne ku ne yaa ngi jël position. Mhm. ak di ñu wattandiku. Mhm. am na ci doxin woo xam ne di jërul wattandiku. Mhm. mooy wax. li la ñor wax nañ ne tooñ nañu. foofu lañ mën a yem. yëg daal képp koo xam ne jullit nga war ngaa yëg ne lii. offensé nañ sa yonent bi te loolu liberté d'expression bu amee ku ne mën nga koo wax wuy ji fu la nekk. wuy ji fu mën a doon dañoo tooñ sama yonent bi. je condamne. ko defoon condamne naa leen. léegi nag boo ko defee te dégguñ ko. boo ko defoon bu njëkk duñ ko dégg heure bii nga ko mën a wax mooy. comme ay événement na kon condamné lañ lañ defoon mooy ànduñ ci ñu jël suñu yonente mhm. loolu mooy suñu position mhm. léegi nag ña war a aar ka leen ñooñu ñeneen lañ ñun du ñun mhm. naan rey ga noonu ñoo ñooñu dañ ko bàyyee ñeneen en tout cas liñ mën a wax daal mooy yonente bi mooy li gën a seer ci jullit bu fekkoon ne gëmu ko jullit milliard ak muslim am benn drapeau mooy yonente bi ñëpp xam nañ ne mën nañoo wuute ci nu euh, ñuy euh, euh, nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy jàppee mhm. am na ci yoo xam ne sax ci fekk kenn du ci tutoyé. Mhm. Eh, ci Pastef. Mhm. mais jullit ñoo bokk Kaaba gi. ñoo bokk xibla gi ñoo bokk alxuraan bi. yàllaa ko aar innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu la xaafizuun. yonent bi yàllaa ko aar ñëpp kenn ku wedd yonent bi amul ñaari yonent ci islam. léegi drapeau bu toll noonu. ñuy aar drapeau yi di aar symbole yi di aar monnaie te boobu aar ñaan man sama wax ji mooy ñu décréter. benn loi ci Nations Unies. maa ngi koy ñaan suñ politique ñun aaral ñu yonent ba nga xam ne nekk lu sacré kenn du ko laal ak yonent yëpp parce que ñun nag mm-hmm. yonent yëpp lañ boole mm-hmm. yow benn yonent ñaaral bi suñ la mit mooy falaa taxinu mm-hmm. wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu kenn nekk di ragal ak di tëkk justifier naan nangam ñun li ma gis mooy ñun on n'est pas on n'est pas obligé ñuy nekk di layal naan. Mhm. ñii ci lañ bokk ñun li ñu wax mooy li ñu mën a obligé ñu wax ñu ko daal mooy tooñ na suñu yoonante. Mhm. foofu laa mën a yem tooñ na suñu yoonante waaye nag ay léeg mhm. moom lu xew-xew awee mooy suñ kànd gi ci jógee. maa ngi lay doguma la wax naa ko fi léegi. imaam ji nga xam ne. ci biir jàkkaab lañ ko fekk Italie. ne ko jox ko Sosi Sarr li dane man du ma jël kayit bi Sosi Sarr du ko jël mais pourquoi mu di ko jël surtout nag ci milliard muslim ak mhm. genn wàll lañ tooñ mhm. kon ñun li ñu war a def mooy mhm. ñi ngi ñaan suñ politiciens yi ñu jël ay loi yoo xam dañ koy proposé surtout assemblée France bi nga xam ne moo gën a nekk até ci réew yu Europe bi assemblée France ngir ni ñu def holocauste def ko antisémitisme ñu defal ñu ko euh, anti loi bi sax waroon naa ko appliqué ci ñoom bu fekkee loolu doog la antisémitisme mais dañoo identifier lan mooy antisémitisme mooy holocauste soo ko waxee dañ la war a jàpp mhm. te li ma lay wax nii mhm. gëstu leen ci internet da gis li wax nii mhm. li may ñaan daal kon mooy ñun ñaari position moo ci am fii leeral moo ñu taxoon a jóg waaye politiciens yi nga xam ne moom lañ am ñun fii ci Sénégal ñu ngi leen di ñaan ñu proposer loi yoo xam ne dañ ko yóbbu ci assemblée France ba ngir ñu aaral ñu Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. euh, euh, loolu mooy liggéey bi nga xam ne gëm naa ne bu ñu ko defee mhm. boobaa mhm. ñoom politiciens yi dinañ wàcc luñ mën a dem di coloniser xam nañ ne fii Sénégal mënut a ñàkk France gis nañ ba ñenn ñi sax ñi ngi am jël position loo xam ne ñoo ko moom ci politique am na ci loo nag dañ ko muumul ndax amaguñ doole ji mais am na lu minimum bu ñu man mooy jël ay loi proposé ko assemblée France parce que tubaab ay loi rek lañ xam ngir ñu aaral ñu yonent ba nga xam ne ah au moins moom France duñ ko defati. Mm-hmm. te loolu nag maa ngi koy ñaan. Mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi déglu wax ji. wasalaamaaleykum. jërëjëf Serigne Mourtala yaakaar naa message bi jàll na yaakaar naa ñu fexe ba a ni ñu aaree seen drapeau yooyu. Mm-hmm. aaree ko ay holocauste yooyu ba ku ko wax sax ñu sañ laa tëj. ñu aaree ñu ko suñ yonente bu tedd boobu. aaree ñu ko tam mboolem yonente yi. ndax yàlla dañu ne laa nu farriqu bayna ahadin min rusulihi ñun yonente yëpp ñu kenn ku leen di laal. te yaakaar naa Euh, njëkku fi ndax defe naa abu jahlin mas naa fekk yonente bi sallallahu alayhi wa muy julli mu jël mbàqu gëléem gu nëb sotti ko ko bi mu ko sottee suñu borom dafa mer daal di koy wax ne kalla la in lam yantahi la nasfaan bi naasiyati su moytuwut su tu bàyyiwul li muy def dinaa ko toroxal naa kaa naasiyatin kaasibatin xaatia gën a bon waay nga xam ne day mel ne suñu borom moom mooy xuloo waaw gën a bon gën a ñàkki teggin dégg fenkat bi naa maa nga xam ne ci waxin. da koo da koo da koo da koo kii. dégg nga daan ne fal yadu naadiyahu na woyi ku ko neex. sannaduhu sabaaniya ma woyi ñu ñu ñu ñu ma woyi samay gaay man itam. inna lazina yusuna allaha wa solo waaw lahanahum allahu fi dunya wal axirati. mi ngi noonu dafa mel ne kon bi sun borom ne. fal yadu naadiyahu nañ woyi ñu leen neex. dafa mel ne ñoom bi ñu. defee yonent bi sallallahu alayhi wa li ñu koy def ba noppi. Mhm. ba li leen di daal daal leen. Mhm. ñoom wooyi nañ ay nit ndax àdduna bépp defe naa ñoo mhm. daje di leen jàppale. waaye sun borom nag. sa nadu zabaani ya moom. ñun yaakaar naa ñañuy wooy ñun gisuñu ko ndax moom àllaaxira kenn demu fa. gëm rek lañ ci am. te yaakaar waaw maa ngi jégalu. mbooloo mi bu mu impressionné kenn. Mm. laa xabiisu. Mm. wa tayib wala wax njëba kasratul xabiis. kasratul xabiis yi. Eh, bi mm. impression ñun defe naa mooy suñu rôle ñun ñi mm-hmm. mooy. Mm-hmm. bu dara xewee ñu identifier ñi parce que. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ay sénégalais ki jullit ñu nekk euh, France ñoo xam ne impressionné nañ ci mbooloom bari mi. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg nag. fi ne du fu jàngee sa diine mhm. ñun ñii ñëpp jàng nañ suñu diine mais nekkuñ fi mhm. dañ ciy jéem liñ mën rek mais diine da ngay dem nga jël ay téere mhm. nga jël ci li nga xam ne lu xool lu jóg nga xool ci sa position moo tax dafa yomb trop nga jóg ne xaraam na ak dagan na xalaal ak xaraam ci télé bi nii rek te nit ki dafa compliqué ñu daal li man a wax mooy ay ligne grande lignes yi mooy daal nit ki am na ci yoo xam ne nii moom jóg rek euh, euh, fooye ko mooy lu toll ni yonent yonent bi li taxoon ñu gàmm gi ñu génne ay milliards. ay millions milliards sax lay wax ndax jullit ñi. fii ci Touba Tivaouane dëkk jullit jullit yëpp fanaanee xoole ba suba. mais nekkuñu woon di di di di di di di di di kii dañ doon jàng. nekkuñu woon di di di di construire mbaa ñu dañ doon jàng. luñ doon jàng ay bayit la yoo xam ne ci yonent lu jëm malaaka yi di ko bind ñu ñu koy bindal ay yoon. mais lu mel noon nag bu amee moo lay xamal ne. yi euh, euh, euh, wax yi simple du da dëgg la wax ñu ne ñu mm-hmm. ne ñu ne. Mm-hmm. liberté la. dëgg effectivement ñun loo xam ne ci la ñuy yendu di fanaan jàppe ko. Mm-hmm. muy suñuy. Euh, ay baat yoo xam dafa am signification. Mhm. kon jëmm jooju nañ ñu ko aaral. effectivement jërëjëf jërëjëf la ku la bàyyi xam naa ne moom da nga jëlaat beneen émission. Mhm. waaye kon xam naa rek loolu mooy nga xam ne ni émission bi ñu mayoon li ñu cëraloon ci waxtu jeex na. Mhm. yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew. lii moo nekkoon seen spécial numéro bi nga xam ne nii day def lu xew ñu woo kenn ci consultant yi mel ne sëriñ Mourtala nga xam ne nii mooy suñu desk italien donc mu ñëw euh, jéem ñoo jàngatal situation boobu nan la ko gisee ak nan la ko jàngatee nan nan la ko déggee euh, kon di leen dig daje ba benoon incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.